إليك يا خير البرية السلام خديمك الذي كفيته الملام إليك يا خير البرية السلام خديمك الذي كفيته الملام صلى عليك أبدا ما سلام في الآل والأصحاب ربنا السلام حست مقاما دونه كل مقام يا نور كل عابد صام وقام أنت الذي أخرجنا من الظلام بك لنور من هباك بالكلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyoo fii ci kër Serigne Touba gi jàkkaarloog jumaa ju mag ji di jiital ci nuyoo bi ak cheikh Mouhamadul Mountakha ibnu cheikh Mouhamadul Bachir xalif général des Mourides di ziyaare itam Serigne Amsatou Mbacke moom Serigne Chouaïbou Mbacke mi nga xam ni teew na ci jataay bi. ànd ak sëriñ Youssou Diop jëwriñu daari Hizbut Tarqiyyah sëriñ Cheikh Abdou Latif Mbacké ak sëriñ Saliou Mbacké ak lu takku ci bokki taalibe yi ak ñi nga xamante ni ay jëwriñ lañu jublu gi nag mooy ndigal loo xam ne mu ngi bàyyikoo ci xalif général de mourides Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké muy bisub xasida bu mag a mag a mag boo xam ne fas nañ yéene amal ko ci dëkk bu tedd bii di Touba bisub àllarba war a doon benn wala ñaari fan ci weeru muharam wii ñu jublu atum junneeg ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ci gàddaay gi di dëppoog 11 ci weeru août atum 2021 ni ñu nosee liggéey bi nag ak ndigal li dinañu bàyyi kilifa yi ñu jottali ko dinañ jox sëriñ Cheikh mu sëriñ Abdou Latif mu ubbi kàddu gi bu noppee sëriñ Youssou Diop jëwriñu daara yi Hizbut Tarqiyyah dana indi leeral yi ak ndigal li ni ko Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké digle bu ñu noppee dinañ jox sëriñ Moustapha mu sëriñ Mahmadan mook sëriñ Aline Diop dinañ wax ci turu sëriñ Hamsatu Mbacké moom sëriñ Chouaïbou ak mbooleem ahlu xasida bu ñu noppee jox sëriñ Abdoulahat Bousso mi nga xam ne moo fi teewal daayira Muxaddamatul Xidma ndax liggéey bi ci jumaa ji lay tàmbalee ak li ko wër mu joxe ci ay kàddu su ko defee woote bi nag dina jëm ci mbooleem bokki taalibe ak mbooleem kuy yëngu ci xasida ak kuy jàng xasida ku koy durus ak ku koy yëkkati ci lu wér fu mën a nekk ci biir rëdd réew mi na xam ni ndigal li Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké joxe tàbbi na ci biir loolu. loolu li ci am solo mooy fu taalibe bi mën a nekk jàpp ne bis bi yaa tax Sëñ Mountakha di ko woote jàpp ne yow la Sëñ Mountakha bëgg a dimbale tax muy woote bis bi te ndimbal lañu fekk loxol borom kon kenn ku ne fam toll na ni waaje ki mën a jàng genn xasida ba kenn ma ke mën a jàng téeméeri xasida ke mën a jàng ñetti junni way ci bis beeg lu ne lu ci waaye mën na ko def ku mën a ñëw itam nga ñëw bu wuy si ba noppi defee ko fii foo nga xam ne mbooloo dañ faa daje ña nga xam ne foofu mën nañ mbooloo te mën nañ faa jàngee mën nañ leen faa berdeele nañ jàng loolu lépp seen yuusu danañ ci egsi date waajtaay yi mi ñëw dañ koy nas ba nga xam ne fu fi mbooloo nekk danañ ko xam dañ leen di digale ñu jàngee nii danañ ko xam jàngin bi nañuy tuddee lépp danañ ko digle teg ko ci yoon woo xam ne ñëpp koy xam nañ ko war a bernde yi na war a demee dañ ko teg ci yoon wu wër woo xam ne ña war a toppatoo bernde yi ña ko war a togg dañ ko war a andi dañ ko war a yóbbul lépp lu ñuy nas la di ci am solo daal mooy yéeg-yéeg bi rek yéeg-yéeg bi mu tax am daal wàllu na ko nu itam nañ fa séenam suñ yéeg-yéegu bopp kenn ku ne daal nga jàpp na si yëfa jàpp na ci mbir mii ci la ci la la sëñ bi bëgg a jaar la sax defaru ci la sëñ bi bëgg jaarale sax mucc nga nga fabee ko noonu yëkkatee yëkkatee ko noonu boobaa bu ñu ko defee baat bi li ma waxoon rek li ci sëñ bi nas xalaat ko ci bëgg ko ci bu ko amee nun liñ bëgg lépp dañ koy am te yëgal lépp kon nako ko bi bëgg nan fexe ba defee ko noonu rek te loolu nag yëg-yëg rek la yitte rek la yitte rek mu taxaa da koy wax dañ ne mbir lu mu rëy buñ ko nasee teg ci yitte luñ ci bëgg mën na ci waaye nas ak yitte nag moo mënta ñàkk ci mbir lii nag moo laaj nas ak yitte nag kon nag maa ngi soññ sama bokki taalibe yi noonu ñii nga xam ne noon noo war a yor liggéey bi noo war a laxasaay yor liggéey bi nan laxasaay fas yéene taxaw liggéey bi ak kenn ku ne na nga jàpp ne nag yow yaa war a taxaw liggéey bi ci bopp man nag jàpp naa ne maa war doon dawal sa Amsatu maa war doon dawal sa Yuusu maa war doon surga bi maa war doon jëwriñ ji buñ ma noppal buñ ma bàyyi dañ yor yar yi topp ci sama ginnaaw di ma caw may daw rek ñëpp nag ci loolu la sëñ bi damaa gën a dóorub yar rek ma ne yaay Cheikh Ibrahima sëñ Mountakha kon kay man xam lu me def waru damay daw rek warutuma noppalu waruma taxaw waruma geesu daw dem rek ñaan ànd ak murit yëpp nu dem nag nu topp ci seen ginnaaw nag moom daal li ma waxoon démb li ci bëgg na ko ci am di sëñ bi bëgg nu am ko nii tam nan ko ci am xëy lépp xaj na ci yàlla ñu ko defal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Ah, xanaa dog ngant rek ci kàddu yi ci sa kanam yi kilifa waaye lenn rek lay dërloo mooy baatum ndigal kon ñu ngi sant sëriñ bi nga xam ne moo ñuy liggéeyloo te it defal nu taw feex boole ñoog ñoo xamante ne ànd ak ñoom ngóora du ko maye waaye ndimbalal yàlla rek moo mën a maye ñu boole la waar ne la jógal dem ànd ko ñu tedd ñii nga xam ne kenn ku ci ne fi la sëriñ bi teg ku ci xam dara di nga xam ne am nga loo xamante ne sa nguur a mayu la ko kon takkaat sa laxasaay rek te euh, xam ne liggéeyal sëñ Tuubaa rek la dese sëriñ bi defal na la loo xam ne jomb na la ndax bëgg liggéeyal sëriñ bi baax na waaye sëriñ bi liggéey loola moo ko gën euh, ñuy sant bu baax ginnaaw bu ñu ziyaaree te ñaanal sunu sang bu tedd bi Cheikh mun Mountakha ñaan mu yàgg fi loolu te wér di ñaanal euh, Euh, rakki boppam yu tedd yii ak tamit bokki boppam yu tedd yii nga xamante ne dañoo doon ay bokk ba noppi waaye laxasaayu ba nga xam ne dong bu góor góorgóorluwul ah dinañ jër cëru doon sa kilifa ba noppi dàq laa tardé yow loolu nag moo tax ku mel noonu boo àndeek moom sago dootu la yomb euh, Cheikh Mamadou Mountakha moom euh, li mu nu bëggal te bëggal ko mbokki jullit yëpp bëggal ko mbokki taalibe yëpp nan xam ne li gën a wóor mooy sunu pas-pas ak sunu yéene ak sunu ñaan nañ ko tàbbal ci biir la muy yéene ak la muy fas ak la muy ñaan ndax defe naa sëñ Cheikh euh, moom sëñ Abdou Latif kàddu yi mu wax matale na damay jaaraat rek ci ay baat yoo xam ne sëriñ bi daf ma ko wax ma dégg ko bëgg nu gën ci jariñoo ndax dafa ne weeru muharram yi day muy weer wi nga xam ne mooy weeru tamxarit mu jël bésub àllarba di Euh, war a doon benn fan wala ñaari fan waaye àllarba ji mu jël kon day tombe ak mercredi àllarba kon 11 août 2021 kon fukki fan ak benn yooyu muy tombel dañu xam ne mën naa doon benn pan ci muharam waaye mën naa doon ñaari fan dafa wax ne weeru muharam day day weer woo xamante ne weer wu màgg la te bari njëriñ te sëñ Tuubaa suñu borom jagleel ko si loo xam ne moom rek moo ko am ku ne xam na ne liggéeyam bi mu liggéeyal suñu borom ak at yi mu def njaareem ba mu tolloo ci waaj di ñëw ku xam dara ci suñu borom xam nga ne képp ku suñu borom am ci tànneef ñu baax ñi ñëpp ñëw nañu xam ne ki gën ci ñu mës a liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi na liggéey boo xam ne kenn mësu koo def ñu ànd ñu moom jóge gi jóge njaareem ñëw fii ci Touba jund layil xaaliboon kenn desul ñu baax ñëpp kenn desul sëriñ bi nag bëgg nu nu bokk ci ñoom moo tax tey jii mu bëgg ñu jëriñu ci jóg googu sëriñ bi jóg di ñëw ci fii nga xamante ne mooy Touba diggante Njaareem ak Touba ñu war koo gàttandu war koo gunge gunge googu nag mu gis ne lenn rek ci yàlla mooy xaside yi ndax sëriñ bi ak maggam lenn rek la ñu mën a ànd ak moom yeyoo ànd ak moom mooy xaside yi ndax neen xaside yi mooy jëmbi sëriñ bi loolu nag dafa laaj wàccaay laaj ak teewlu laaj ak sell mun nañu fu kuréelu xasida ne ak jàngkat boo xam ne la muy jàng wér na sell na boole leen ko ci kon xatalu ko da koo yaatal mu ne ma nag na jóg balaa ngaa def dara demal ba ci sëñ xamsatu moom nag lépp lu ñuy def ci xasida moom lañ koy dimbalee loolu moom ba ma joxee ndigal loolu ci laa xam sama bopp bu baax xam naa ne kon la ma ci eh, ñor mooy sëriñ bi faw ñu xam ne dañoo war a laxasaayu ko waye tamit da ngay am dalil mom nak bam ma bolé sëñ mustapha mom sëñ Mahmadan mi itam bobok léegi gëlëmatuma xamna fi may tek sama tànk di sante bu baax tamit sëñ Alioune Diop mi nga xamantene ne khassida xasida biñ ci def te diko def ci kilifteefu sëñ Hamsatu mii murit yëpp xam nañ ne liggéey bu mën tona ñak ci yoon bi la pàgguteefu sëñ Tuubaa la ñeneen ñëpp nak ñi nga xamne sax xëj fañu fa nekk ñu ngi yëngu ci xasida yi nañu xam ne ci lañu loolu mooy ndigal li sëriñ bi nañu nag biir jumaa ji ak li ko wër bu ci yem nee nañ nee na mbooleem pénc yi nekk ci Touba ña nekk ci pénc yooyee nañu yem foofe te dundal ko foofe ndax loolu mooy tax ñuy bàyyi ko ci euh, yeneen gox yi ci biir réew mi bu ñu dikkee kenn ku ci ne war ngaa xam fan ngay dal loolu it ak nos la goo xam ne noo ngi ci liggéey boobu ndax tey jii mboolem ñi yëngu ci xasida am na nu ñu nosoo ca Ndakaaru am na nu ñu nosoo ca Kees am na nu ñu nosoo ca Saalum am na nu ñu nosoo fu ne loolu fi ñu toll nii ñi ci war a liggéey ñu ngi ciy liggéey ñu ngi koy ànd ak ñoom kon nañ xam ne liggéey bi lépp dina tege ci yoon incha allah xasida yi ñu jàng sëriñ bi dafa bëgg kuréel yi jàng ak jàngkat yi nga xamante ne dañuy rajas ku ci ne la ngay jàng ak sa morom la muy jàng na wuute loolu it mën naa ne ci nos la ndax tàmbali nañ cee liggéey te yaakaar naa ne lépp buñ ko tefee buñ ko tegee ci yoonu euh, ndigal rek lépp dina sotti ñuy sant nag bu baax a baax a baax a baax li nga xam ne moom sëriñ bi wax na ko ndax euh, liggéey buñ toll noonu ak yaatu gi mu yaatu wax na nañoo xam ne ah barab bi jàng xaside yi dina yaatu waaye wàññi it war naa yaatu ndax Tuuba gépp war nañ ko def defee wàññ Euh, ndax ginnaaw nii sëñ Cheikh waxee de li muy wane mooy ñun nañu laxasaayu rek wane na jublu nañu wutali sëriñ bi ndax sëriñ bi léppam daf koo jox rek yonent bi sallallahu alayhi ñun suñu léppit ñu war koo jox sëriñ bi loolu mooy mooy liñ ko ameel bor te lott nañ ci sax waaye nañ ci jeex takk rek ngir wane na suñu ngor mat na suñu jom mën na mat na suñu passé mën na yu bajjilu kulli kullakal yawma ma ghadin wa in shaa rabbi laa uraad dahra daawan yi sañatuñoo noppalu sañatuñoo tayyi ginnaaw loolu itam waañ yooyu nga xam ne war naa am ci tuubaa gépp ñoo ngi koy ànd ak seen seex mu ngi ciy jàppale ñoo ngi koy suñu bokki taalibe yëpp ngir xool fépp foo xamante ne waañ mën na fa am buñ la limul it yow limal sa bopp te dikk te xam ne fépp foo xamante ne daara Hizbut Tarqiyyah am na fa wala fépp foo xamante ne sëñ Hamsatu mii ndawam a nga fa foo ci dem di nga gindiku benn liggéey la benn nos bi la loolu kon ñoo ngi koy ñoo koy leeral ñëpp wax itam ne euh, mom serigne bi day ba mu joxe ndigal li rek jël na ab lim ci ay nak yu tollok arafi Touba nañu fi sasi mom la koy tambalé muy ñaar fukk ak juróom-ñett boole ci ñaar fukki goy ceeb ak ñet euh bëgg lim bëgg leneen li ci des lepp mu def ko ma yalwaan ko ne ko mbacke man de dama dama yalwaan rek ginaaw da ñu ko diggal te te bëgg nañ ci tabbi do bëggoon ndugg la ca warat ak luñ ci mëna doli wat nga nga nga nga nga nga mu ci lañ ci la nangul lolu may nuko. waye bañ ca téwé ci kanamam it man ak sama sang bi di seigne hamsatu fa saasa sëriñ bi neena bis la bo xamne nak ay téméri téméri nak sax du tax mu doy ci lolu kon moy wane ne togg yi mom nañ ko jappé li adadin laa li xam moom na wourné lu mat bis bi mom mënuñu ko am waye nañ ci jex tak seigne hamsatu ni mi nak wane na yoon kon lii daal laa ci doon dolli di wax ne euh, ñu ngi sant Cheikh Mamadou Bachir mi nga xam ne moo yor kàddu sëriñ bi ndax euh, bis bu mel nii ku ne xam ne ne mbooloo dina bari dina dinay demee noo xamante ne ku ko saytuwul boo moytuwul tumuraanke mën naa am moo tax kon moom ba mu xamee ne lii nga xamante ne si xam sa mi ngi koy def di ko defal bokk yëpp mi ngi koy féete moom it am na wet goo xam ne feelu na ko ci fa saasa la jël ay matuwaay yoo xam ne ñu yor wàllu wér-gu-yaram muy préfet muy yor wàllu euh, kaaraange amu ci kenn koo xam ne woowu jox la ndigal ngir nga taxaw ci kon loolu kon war nañ ko cee sant bu wér ndax xam na lii liggéeyam te mosu cee teggi tànkam di ko ñaanal bu baax mu yàgg fi loolu te ànd ak wér euh, leneen li ci des rek ma ko ciy dolli defe naa du bari dafay jëm rek ñu xam ne nun teewlu gi ak yar bi ak teggin yi ak kuy ñëw nga déglu ki nga xam ne mooy sa kilifa ci gox ba nga bàyyi ko ngir ngir ngeen xam fan ngeen di dal ndax masalan boo bàyyi koo cees damay joxe misaal rek ñu jóge foofu ñu ne leen barab sàngam la ñu faggul ñi nga xam ne ñooy jàng xasida bàyyi koo cees euh, moo xam muy kuréel wala moo xam njàngum durus lay rafetal liggéey bi mooy nga xam loolu te jubali foofu ñi nga xam ne mooy kuréelu xasida yi nekk tubaa rek seenub lim yaatu na taarkalla loolu tamit bu ñu xamee ne barab sangam lañ leen fàggul loolu yeneen communication ak yeneen euh, waxtaan dina am yoo xam ne mooy topp ci bii te ñi koy war a def mooy ñu yor bànqaasi liggéey yi nga xam ne yii ci wàllu togg la jëm yii ci wàllu njàng mi la jëm yii mi ngi jëm tamit ci wàllu sonorisation ndax nit kuy ñëw te amaale basan wala nga amaale ay rajo wala nga amaale ay ay ay tante ak ki baas boo indee day yombal liggéey bi ndax nun sunu sunu liggéey la ay bool ku ci indi lu doy day tax buñ la buñ la yàkkalee it da mën a séddale te loolu dina tax dara du sànku ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi it tey tey togg di indi war nañu ku ci ne war naa xam la muy togg fan la koy yóbbu ngir ñu ko yóbboo ña koy jël ñu xam ñan lañu su ko defee ñu mën ca ñu mën a fexe ba la tax mu ñu def ko ñu mën caa jëriñu te dara du yàqu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa eh, sant sëriñ bi. ñu ngi nuyu bokk yëpp ci turu sëriñ Hamzatu moom sëriñ Sanyu ndax euh, di wax ne moom bi mu jotee ndigal ci sëriñ bi loolu day lu rëy ci moom euh, ndax ni mu ko waxee sëriñ bi rek saa su nekk dañuy dàkk mbégam ak bëgg-bëggam waaye nag bu wootee santaane ab liggéey euh, kon loolu tawfeex ju rëy rëy la te it muy liggéey boo xam ne sëriñ bi ni mu ko santaanee ak ni ko fonke dafa kawe lool ba e, du ci dikkaat sa sëñ su wax na ko waaye ñaari kàddu yi mu wax rek nga xam ne day tegtale ak fonkeel wax na ne fukki lu xasida xaj rek e, na na fa ne wax ab lim bu ci barkeeloo ne nag ab tàmbali la waaye bis bi ye e, maanaam na rey ci ay téeméer téeméer nag kon sëriñ Xamsatu li nga xamee ne da ko cee euh, barkeeloo ànd ko waa waa ahlu xasida ne ñëpp xam ne ab soññ la képp ku man ak foo mën a nekk nga xam ne liggéey bi liggéey sëriñ bi la te it lu yaatu yaatu la loolu du ma ci xuus sëriñ Aliou ci dikkaat ba mu gën a leer bu baax a baax a baax waaye daal nañu xam ne lii ndigalul sëriñ Touba la loo xam ne nii mën nañ cee jariñu àdduna ak alaxira ndax sëriñ bi yitte ju kawe kawe la ci moom kon jàpp naa ne lu ci waay fas te jëf ko ci da nga ci am loo xam ne nii amee ko ci leneen du yomb jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe murid yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziara te di leen ndokkeel di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi cheikh Mouhamadul Muntaqa tey ñaan sun borom mu gën ko fe yagal te gën ko wëral te mu melni ne kenn ci ñun bu mu doylo baat bobu rek yem ca murid bu ne war nga wut dog bo xamne ne digg ak sa borom rek la nga warloo ko bis bu ne nga wéet ak sa borom def ko def ko muy tawasul sa digg ak mom ngir ñaan serigne muntaha mu yag fi te wër te baña yem ci yalla na fi yag te wër kese loolu mang koy soñi sama bop di soñi bok talibé yépp ndax kat ak yagam fi amal nañu njariñ kon yalla na fi gëna yag te gëna a diko di nuyu bu baax te di ko te di ndokkel te di ko kañ mom Cheikh Ahmadoul muntaha li Serigne Cheikh Mbacke wax ci mom nonu rek la démé Serigne muntaha mom waxuma nga gis jëmmam waxuma nga dégg ay kaddom waye sa xel bu démé ci mom do xalaat luddul ab mourid mourid bu mel serigne touba bëgg mourid mel mooy sëñ Muntaxa yi ci des yëpp murit gi da koo muur yow kay yaay xool ba gisaat loola waaye boo ne sam xel ne càpp sëñ Muntaxa li ngay njëkk a mooy murit saadix mu mel ni sëñ Tuubaa bëgg ko ni mel soo ko xalaat nag doomi sañ Basiru soo ko xalaat mooy mooy xalifa sëñ Tuubaa soo ko xalaat soo xalaat waaye murit la moom sëñ Muntaxa te yàlla lim bind murit la ci gën a bëgg moom la ci gën a fonk te sëñ Muntaxa doon na ko te yemul ci doon ko waaye ak laabiram yàgg na ci bëgg ñëpp yi murit moom lay waxee moom lay jëfee kon yàlla na fi gën a yàgg koy siyaare bu baax di siyaare mbooleem rakkam yi te di ko teg ci loxool sëriñ Xamsatu mbakke mi nga xam ne mooy jëwriñu ahlu xasaayit di rakkam di soppeem di ko xam ne ku ne xam ne ne sëriñ bi amul ci moom sago te li ko waral du bokk gi murit gi mu doon moom sëñ Muntaxa te sëñ am sa di murit ñu daje ci loolu yi loolee ma waral fonk gi ma waral sopp gi kon sëñ am sa ñu ngi di sëriñ di siyaar sëriñ Moustapha Mouhamadan ak sëriñ Cheikh Mbacke Baye Fall moom day sëñ am sa nee na ko yaay Cheikh Ibrahim sëriñ taxaw waaye loolu yàgg na de moom ku ko xam xam nga ne ci Baye Fall ko xam te nag Baye gi li tax mu gën a dëgër mooy da koo donn ndax baayam day sunu baay nampatal nu man na mel na wax ne lu nu mel ci sëriñ bi rek sëriñ Abdou Latif moo nu toqi di koo xam ne sëriñ Abdou Khadir daana ko yéem ci pastéefam daan wax ne man de Abdou Latif damaa xamul fu ma koy teg ndax boo ko dugalee ci sëñ Mbàkke Buso mu jeex ca takk boo ko dugalee ci Cheikh mu jeex ca takk kooke nag la doon kon Mbàkke jërëjëf eh, di ziar dong yëpp waaye ziar dong yi dañ koy teg ci loxol sëriñ si Diop wax naa ko ne ko mbooleem jëwriñ yi ci yoonu murit jëwriñ ju ci ne say marami murit te la xool ba nga doy leen ñu la doxal ñu topp ci sa ginnaaw mat nañ ko de ndax murit la tànn lu ñu tànn tànnu na waaye sëriñ Yuusu moom daa taw feex ndax daa ne ci tool bi di liggéeyal sëriñ bi di liggéeyal sëriñ bi ba borom tuwaa ne ko Yuusu mu ne ko Mbàkke mu ne ko doxal Yuusoo ngoog la sëriñ bi wax loolu nag taxawaalu may ko taxawaalu may la ko li li li daal sëñ Muntaxa ci fii mu toog moo la dal fi nga toog mosoo koo xalaat mosoo ko yittewoo mosoo koo dox waaye sëriñ bi daa bokk ci ay turam moom buy daal muy dal moom sëñ Tuubaa kon yuusi na sam xel dal ndax gannaaw dong yi ñu tànn képp la sëriñ bi jàppale bañ mën a dem asteeku sëriñ bi tànnal boppam kon waas bi tarxee lu dul sant te feddliwaat seen laxasaay te topp ci sa ginnaaw waru leen te ci loolu lañ nekk xam naa jataay bi daa xaw a gudd gàtt ba liñ bëgg wax lépp duñ ko mën a wax waaye foofu doy naa yem ñu ñëw ci lii nga xam ne moo nu tax a daje la sëriñ bi waxoon ca njaareem ba mu wootee ba ñëpp dafa def ne li tax ma woo leen day yitte te mooy bis bii nga xam ne ci laa doon liggéey rasulullah sallallahu alayhi saa bu mosaan dikk suñu borom day dolli nattu yi ful ko natt yooyee nag la saa borom xamal ne ma jeex na pay gi itam na nattu yi doon demee ni lay demee mooy at mu jot day fuya day ful pay gi ma bëgg nag ñu def ko yitte wax ca lam ca wax yëpp foofee sëriñ bi tegoon wooteem boobee rek la sëñ Muntaxa teg woote bi na murit yëpp xam ne wooteem sëñ Muntaxa bi yitte la lu ab murit jàppoon bu bis bi jotee na ko ne tegg ci suuf te wuy si sëñ Muntaxa Sëñ Xaadir day wax ne lu ay nekk lu mu baax baax bañ ne julli jot na loolu baaxatul julli rek a baax waaye ne murit yëpp xam ne lu ab murit nekk loola lu mu baax baax lu mu yitte yitte ba sëñ xaa ne soxla na la la nga nekk baaxutul wuy sëñ Muntaxa rek war kon na ñëpp wuy si sëriñ am sa mi ngi woo mbooleem kuréeli kuréeli xasida yi képp koo xam ne mën nga ñaar ñett di ci barab di jàng xasida sëriñ am sa nee na woote bi sab wootee rawatina nag ñiy taxawal bi si xasida yi ñooñu ñoom force la ci ñoom waxuma jëwriñ je waxuma ña top ci ñom ku bok ci kurel goge rek dañu wara andono nañ dañ def seen kurel àndandoo ñew wuy ci serigne muntaha te buñ ñëw loxoy kese kurel buñ ñew na nga daan def ci bisub xamal ne mo la mo la war fi mo la war fi kuy ñew say basang bu mu dess say bol bu mu dess say nak bu mu dess say xar bu mu dess say bernde bu mu dess na lepp dik na lepp dik bis la bo xamne ne benn bis la wara doon Sëriñ mun taxa waxoon na ko ci at yii ci ginnaaw muy daaw waxoon na ne réew mu ne mën naa jaaxle ba mu des réew mu am sëñ Tuubaa loolu nag nun ahlu xasida ñoo ko war a wane tey jaaxle gii lëmbi àdduna lañ bëgg sëriñ bi ne ko seppet sànni ko fu ko ko bët dooti tege ci loolu sëñ Tuubaa mën na ko waaye sëñ Muntaxa day wax ne sëñ Tuubaa day moom sàgganut fàggu na lépp waaye ñi mel ne man dañuy jàpp ne ku a da ngay toog sëñ bi indil la sa wàll sëñ bi amul jotug wër di séddale serigne bi mu faggo lepp da ko tek ci barab kenn ku ne si tek sa passif moy tax nga jot sa wal té nak bisub seddal baangi ni ko bëgg jot sa wal wajal ci dik wajal ci dik wajal ci dik bis la bo xamne ko ko wuté wuté bu ko kenn wuté ku dem ba am ngant ba am ngant ba am ngant nako su jëm wuté waye sa xol ak sa pastef bu ko wuté ak sa alal dak ñi ci biir rew mi ñëw da leen a war ña nekk bitim réew it dikk da leen a war ku ca mënta dikk nanga dikk na ngay dikke mooy ñu mën a daje ci bis boobu nañ daje fa ñu ne tollale ko ak noonu ñu mënta daje kenn ku ci ne sañ ngaa wéet tubaab yi lu ñu mën mën a tere duñ tere ko wéet mën ngaa wéet wéetal sëñ Tuubaa ne ci xasida yi te xam ne jullit yi bis bu nañu bokk daje fu ñuy daje mooy ci néegi yàlla yi bu tisbaar jotee ñu dugg ci jàll jàkk ji jullit yëpp daje nañ ci benn barab ñoom ñëpp ña nga béy ci la kon buñ dajé ci xassida yi murit yépp dajé nañu bis bobu la sëriñ bi woté sëriñ am sa bëgg bu nek bis bo xamné ne sëriñ Muntaxa bu génné ba xol ñu waxu mu ma génn ci sahir di wër waye sëriñ bi génn xol ñu dara ci mom lu ko yomb la ndax mom sëriñ Muntaxa mi tok nak sëriñ guddi di waxtaan bam mu yàgg sëñ na tek bam mu mu mu ne ko Muntaxa sama xel da nek sama murit dama nekkal xel ko ma di len set waye ku fa fanante tey faj sa aajo te ñom ñaar nga tok te ko moy ki kon na murit yëpp wàcc te te kenn ku ne xam ne sëriñ Muntaxa dana la xool rikk waay ku xool ci ñun na fekk nga ne ca la mu nga mel na mu bëgg nga mel nii ndax kat yàlla day ko sell lu sell rek lay nangu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. sëriñ bi ñu ngi lay nuyu ci turu sëriñ Afia Bousso mi nga xam ne moo jiite daayira muqaddimatul xidma nuyu bi nag ñu di ci jiital Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan sun borom mi nga xam ne dara taw ko mu defal nu kiimaan ci ak dundam gu raw ga mu defoon ci dunduk yont yàlla noo sun borom man na ko sañ na ko yàlla na ko def te nu ànd kook moom yàgg nekk ci ginnaaw mu yàgg noo digal nu yàgg koo jëfe nuyoo boobu nag ak siyaara yi ñu ngi koy teg ci loxol sunu kilifa gu tedd gii toog di sëriñ Hamzatu moom sëriñ Sohaybu moom it ñi di ko ñaanal liggéey bii nga xam ne moom la maamam teg ci loxoom ci xasidaam yu tedd yi suñ borom gën koo jàppale gën koo dëgëral ba lépp lu ci yéeneem mu man koo def mboo mbooleem ñi ko àndal waaye ak mbooleem murit yëpp di nuyu itam sëriñ Youssoufa Diop mii di teg ci moom loxo loxo bi loxoom nuyoo bokki taalibe yëpp ni ko ñëpp defee ginnaaw bu loolu jàllee nag dañuy sóobu rek ci liggéey bi daayira muxaddamatul xidma sëriñ bi boole nanu ak yéen sëriñ Yuusu ab liggéey ba tey ñu yàgg koo ànd te lépp yàgg rafet waaye sëriñ bi it yàgg naa santaane ci jumaa ji ay liggéey ñu yàgg koo ànd lépp rafet sëriñ Xamsatu mi itam yàgg na faa ñëw di fa dundal ay guddi xasida ci jumaa ji lépp yàgg rafet kon xëy na dañoo bëgg lu gën a rafet rek waaye rafet moom am na ba noppi ñu bëgg nag kaddu yi ñuy yëkkati ñu jëmee ko ci bokki taalibe yi nga xam ne ñooy jëm si ci jumaa ji nañu bàyyi xel ñett benn bi mooy ndigalul Sëriñ Tuubaa moo leen tax a jóg bi ci topp mooy ci bërëbub Sëriñ Tuubaa lañ koy defe si dolli ci di néegub yàlla beneen ba ca topp itam mooy aaja ju faju lañ ciy wut si ñett yooyu yëpp nag dara àndu ceeg po dara àndu ceeg caaxaan nañ bayyi xel barab bi nga xamni fi lañ jëm ci bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax ci wagar ko ni ko sëñ Saliou daan waxe ci lepp lu basaan di xew ci jumaa ji dafa daan wax ne ni njëkk bayyi xel ciat gi ciat gi ndax l'islam dafa fonk ak set sëriñ touba itam fonk ak ciat ba barabam bu mu massa am ñepp xam nañ xam nañ nam daan mel ci ak ciat julli juróom sax julli jum ci daan massa julli daf koy wutal mu bes moo xam dafa joge ci ci pot set munta wessu weesu loolu la cey topp itam moy ñu sàmmanteeg warma ji warmay barab bi ci bopam bayyi xel ne nekkuñu ci mbedd nekkuñu ci suñu kër nekkuñu ci ay ëtt waye ñi ngi ci kanamu Serigne Touba kep ko xamne ne nga ne bu Serigne Touba toga ne ngay jakarlo mom ci sebeuti sayr war ma jang ko war a jox bo duggé ci barab bi war ma jox nga war a jox barab bi da xamné ne gisulit ko mi ngi lay gis kon nañ ak loolu bu baax a baax a baax kuy ñew nak sëriñ bi joxé né ndigal ne kuy ñew ci juma ji na tak masque gis ngeen jotaay bi ñu tok kilifa gi fi nek woné naw yoon kon nak ndigal loolu it ñu ngi koy fatali bu ñu agsee ci biir juma ji itam ñi nek ci biir di wane barab yi ñi nga ne fi lañ wara tok kuñ ne jekkil fii jekkil foofa te xam ne foofa mooy sa barab képp koo xam ne itam defar nga ay xéewal di ko andi ni ñu ko daan defee ci njàngum alxuraan mi rek noonu lañ koy defee waajal nañ ay barab ak ñu fay nekk ñoo xam ne lu fa andi teg ko ci seen loxo danañu ko sàmm ba mu àgg fa mu war a àgg te dara du ci yàqu waaye nag bëgguñu kenn di andil boppam di tasaareel boppam di séddale ndax barab ba dafa am lu mu laaj ci ak fagaru ñun ñëpp xam nañ ne barab ba ay karo la te li ëpp ci lii bokki ndaw ku ndaay di jëfandikoo day niin te bu tegoo ci karo yi mën naa andi tarxiis te tarxiis doon wut si leneen leneen dabe ko fa ñaanuñ ko sun borom yàlla na ci yàlla musal bépp jàmm moo tax ñu bëggoon lu andi muy lu ñuy naan mbaa lu mos mbaa xeeti foyteef yu mën a doon na ko yóbbu ca fa ñuy tuddee waañ wa am na barab bu ñuy tuddee waañ boo xam ne ña fa nekk dara du seen yitte lu may dajale loolu ak seet nañ ko war a da ci mbooloo mi ca fañ ko war a jëfandikoo ñu bàyyi xelit ne bu waxtu jëfandikoo jotee it ñëpp dañuy sàkk ñu génn ci yokk jumaa ji ak ëtt bi jëfandikoo fi waaye biir jumaa ji sëriñ bi dafa sàkk woon ñu moytandiku jëfandiku fa loola it mi ngi woy ba léegi ñuy ñaan itam sëriñ sëñ bii Diop sëriñ Aliou mii wax na ko léegi muy kaddu gu bàyyi ko woon Cheikh Abdoul Khadir Mbacke waaye dafa mel ni sëñ Abdoul Khadir daf ko jot li waaye sëriñ Touba ko waxoon mooy lépp lu waay di def ak lu mu baax baax ba julli jot loola dañuy aj mbaax ga ba julli jàll kon nag lépp lu ñu ba dégg allahu akbar juy nodd ak ku mën a doon na ma maase dal ku war a nyi mu wat ñi watu défar seen sappé bañ julli ba selmal ñu wat ci liggéey bi nañ ko def ci tisbar nañ ko def ci takusan bu ñu sëlmalee takkusaan te ni ko sëriñ bi waxé légui kilifa gi dana ñëw ci biir juma ji muy sëriñ xamsatu mi yeewee si bi ñuy ñaan nak ñuy ñaan bu boba kenn ku nek na xam ndigalam mooy fa mu toogoon doon liggéeyee fa lañ ko war a wàccee na jekk na toog foofa te woyofalal sëriñ bi bu fekkente ne ci biir foofu la ko fekkoon mu yomb ci moom su ko fekkoon ci beneen barab mu war a ñëwit ñëw ga mën a yomb ci moom ndax diggante tisbaar ak takkusaan dafa gàtt lool te diggante boobu bu fekkente ne dañ ko fee war a tëj ci ay bayit sëriñ bi war fee ñaanal mbooloo mi ñu yawi ko te nodd du jotaat loolu nag ñun taalibe yi ñoo war a may sëriñ bi fursa bu ko mën a defee dal bëggun nañ ko jot li bu baax baax waye nak ma ngi gëna baamu wat ciat gi nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax baax baax kenn ku nek mbusuk ndox sax ku ko naan ko def sa pos ta xamné yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na da muhurul hur fil janna kanzul masajidi wa amaratuha kon nag te yaakaar naa ne ku ne soxla na ci koo xam ne nag lañ leen di jote bokk na ci setal jàkka ak dundal jàkka kon ñun ñëpp war nañoo fexe ba bañ faa andi luy taqal rawatin nag ci barabu Cheikhul Khadim bii nga xam ne fi lañ koy defee. ñuy fàttali bokk yi nga xam ne dañuy ñëw ci liggéey bi te ay soxna ni na nga xam ne noonu la sëriñ bi bañee lool ak jaxasoo ci góor ñi ak jigéen ñi. ni ñu koy defee ci njàngum alxuraan bi am na barab yu ñuy fàggul jigéen ñi ku ñëw tey jigéen na dem ca barab boobee fa la ñuy jàngee. waaye góor ñi dem ci barab yi nga xam ne fa góor ñi di jànge ndax jaxasoo bi dafa doon lu sëriñ bi bañoon lool te bañ ko lool ci barab bii ba tey kon nag képp kuy ñëw itam na bàyyi xel loolu ñuy fàttali ne itam sëriñ Yuusu wax na ne jot na ndigal ci sëriñ bi ne nii nga xam ne noonu lañ koy doxale ci biir jumaay Tuubaa mag ji ñu doxale ko noonu ci jumaa yi nekk ci dëkk bi yépp sëriñ bi mbokk yi dañoo waxoon léegi ne euh, dugg dañoo waxoon léegi dugg ci wenn bayit ñun nag am na bayit woo xam ne nii sax moom la ñu sëriñ bi tànnaloon mooy wal tudxilil musliha fi yadi wa fi daari wa sabitanhu bil haadil wa fi waaye tey nag ñu ngi lay waxaat weneen bayit boo xam ne sëñ bi daf ko waxoon ne ubaayiu al yawma ar rasul al mustafa bi xidmatin wa asalullah al wafa waaye ñun nag tey jii ñu ngi lay seeral ni maa ngi koy wax ci turu daaira muqaddamatul xidma gépp ak sëriñ Afiya ak mbooloo mi fi teew yëpp ne ubaayiu al yawma xadimal mustafa بخدمة وأسأل الله الوفاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتبت شكرا له ما قد رجوت به كوني سعيدا وسكارا وذكارا وجهت وجهي في سهر النبي سندي للأكرم رافع الوهاب سكارا رجوت منه تعالى شكر عملي ورفع اليوم عني النعم غفارا رجوت أن يمحو الذلات جملتها